alhamdulilahi rabbil alamin d' accord Ndeye Sow la jamono ji nga xamanteni ñi ngi jëm ci ay élections anticipées di législatives le 17 novembre au moment bi nga xamanteni dañu déclarer Sénégal dafa nek un pays en ruine mu ngi fekk ko ci quatrième sous-sol ginnaw budget bi nga xamanteni dañu am déficit budgétaire ñu fay yenn salaires yi ñu ci bari di réclamer sen salaire ñu gis ni que ñu gis 47 nominations ñu def leen ay chargés de mission ñom ñëpp nak ñu doon ay coordinateurs yu nekkon ci ay mouvement yi nga xamanteni Pastef moko mom ñom ñoom 47 nominations yu noko 47 nominations union nommé par euh, chargé de mission. non vous faites présidence 47 chargés de mission. ci ñoo xam ne pour euh, changer wala euh, système bi fi je pense que les may en bien ils ont fait moins que ñi fi en mal ils font plus que ñi fi ça confirme mes dires et les dires d'autres gens yi nga xam ne dañoo bëgg Sénégal gëm Sénégal que ñoom ñi fi nekk seen bopp lañ fi nekkal seen poche lañ fi nekkal parce que munoo ne maki li fi nekk dafa bëri. biir 47 chargés de mission. 47 chargés de mission à la présidente toog muy dox nommé en 24 heures pour un pays en ruine tu sais euh, en état un pays en ruine wala euh, bi am ban Ahmed la Ahmed Niang mooy coordinateur JPS bu nekk fële ca Kébémer on la nommé vice coordinateur national départemental la jeunesse patriotique du Sénégal c'est très grave bu Kébémer ñu nommé ko chargé de mission à la présidence et on on prend des maanaam frustré yu gisul seen tour jamono ji ci élection législative yi pour ñu bañ a def vote sanction ñu jël leen casé leen foofu ci euh, présidence te mën na nekk sax des gens yoo xam ne dañ leen fi teg mais après bu li yëpp jàllee mën na leen fi jëlee ce sont mm-hmm. des euh, quand encore une fois comme le dit si bien le monsieur le ministre Yoro Dia ce sera toujours encore des naxee maay et je pense que ñi ngi vivre sa situation yoo xam ne je waruñu woon euh, defee nii mm-hmm. sénégalais yi leen far 54 pour cent yi falu leen pour ñu di plus de 54 personnes ci benn fan di leen présidence déchargé des missions à la présidence lan la def. Mhm nga jël suñu passeport diplomatique jox leen wala suñu passeport de service jël xaalis jox leen te au moment boo xam Ousmane Sonko ngi def conférence de presse di wax ne dëkk bi xaalis amu fi dëkk bi dafa metti au moment boo xam sénégalais yaa ngi xiif mburu mi doo ba suur boo jëndee kilo mburu fanweer ba tey ñu ne dañ koo ba bi kilo 600 kilo 700 diwlin bi litre bi na place am ba ak ak courant bi on voit que tout est rouge Maintenant, il y a une image pour ramener autant de Macky Sall. Tu mets 20 000 francs, tu avais presque 200 et quelques mille. Maintenant, tu fais, tu fais 20 000 francs, tu as 121, tu as 121 kilowatt Lors le nyuwan. Quand je pense que Gumbo d'abord, voilà, Natal, l'année nous doute bien. Natal, tu m'as euh, deux cubines ramener, c'est en ruine. Maman, deux cubines ramener, comme nous voyons, c'est en ruine. Deux cubes au bout de

mais si le ministère il y a des chargés de mission il faut faire attention dans les ministères il y a des chargés de mission toogoon on a le ministère il y aussi des de mission Chargés de mission yokku charge sont ñooñu lekk mais nga sont citoyen Sénégalais àndut ak ñoom te même boo booxee ci ñoom boo amul poste doo lekk. Quand je pense que vous taloon na leneen lu dul tëbi teen. Ousmane Sonko moo ñu wax ne dëkk bi dafa metti moo ñu wax ne fekk ñu fi xaalis fekk ñu fi xaalis ñoo xam en 3 mois leb nañ loo xam ne mi fi en 12 ans avec son gouvernement lebuñu ko il y' a problème. et ils sont encore une fois. en train de mentir aux Sénégalais. Ils ne disent pas aux Sénégalais la vérité. Ils, ils, ils, font, refont la même chose. Ni nous le mais nous encore pour mener à majorité à l'Assemblée nationale té ñing koy ñaan sénégalais bu leen gëm gumba tax tex lu mënuñu ci benn fan ñu jël car, 47 yi dañ ko fessel mais amna ci yo xamné ne nañ ko tay wala bu sénégalais comprendre mm-hmm. c'est pas la première fois hein, c'est 47 euh, chargé de mission là cas lan la ñuy def biir lan lañ leen di yoon comme mission. am na ay artistes yu ma fi gis def nañ leen chargé de mission ay mannequin yoo xamante ne dañoo perte jël seen retraite def nañ leen chargé de mission. te lenn moom te yooyu dañ ko doon nëbb chargé de mission yooyu dañ ko doon nëbb. ñoo xam ne mannequin yoo xam ne mandi naan sàngara tux nekk ci lu leen neex taxawaale ci at yi xëy xëy nee nañ yooyu ñoom la ñu jël dénk leen suñu réew mi dénk leen suñu palais bi mais attends soyons sérieux ci dëkk bi ñu xam bëri na du ñu ay ñoom la ñu placé ci ministère yi ah y dans les ministères il y a des chargés de mission bien vrai que le ministère doit avoir un chargé de mission mais on n'a pas besoin d'autant de chargés de mission dans un ministère et on n'a pas besoin autant de chargés de mission dans un gouvernement surtout gouvernement a des ne qui da ngeen sont xas ñi fi nekkoon man en fait problème boobu laa am tange ak ñoom ñoom dañ ñëwoon li des choses baaxul sont fi nekk dañuy yàq Des choses qui sont dañuy jël yaama neex di qui def mais on sait comment ça se passe comment vous pouvez dire que vous fi qu'on la et vous vous venez répéter la même chose et en pire que ces gens-là euh, ya du ben, fait ne pas qu'on qui sénégalais Qui plus de 100 charges de mission bir bir bir présidence plus de 50 ministère la pour la satisfaire nous avons des dañoo ont ak ñoom ñoo xam des dañoo xeex ak ñoom dañoo cocktail molotov dañoo fen dañoo saga dañoo sat non mais quand même il y a un problème mon pays va mal bon ton pays va mal comme nous le à ce moment là